foofa la yenn oto yi reste yenn yi ànd ak man ñu ñu continuer sur Dakar. Mm-hmm. bi ma ñëwee daal jël nañ benn néeg bu lëndëm boo xam ne fa lañ ma euh, denc man naa wax ne presque ñaata ñaata ñaata semaine ñaari semaine de. ci benn néeg bi ci benn néeg. néeg bu lëndëm maanaam amul làmp. am kooku bu fekkonte ne sama bët yi nekk na bët yu xaw a doy waar sax. dama mm-hmm. fay jóge vision moom dootuma ko am. Hmm? néeg bi nii comme nii la mel am na benn benn tapis bu ndaw benn mat la mat la bi nii la mel exactement cuir hmm. la ci ngay tëdd deux semaines de garde à vue deux semaines hmm. de garde à ci loolu waa wax ni ñaari fan la war a doon voilà deux semaines loola seetlu naa ne vraiment man ma fa jaar te itam néeg bi am na ay zone ay sonorisation yu ñu fi def yoo xam ne day mel ni ay salive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 andi ko toroxal ko jéng ko Jeng, ay loxo jéng loxo yi ni lañ ko def melni ku japp ponkalum criminel waaw takkal hmm? hein dañ la takalon mënut nga andi ko nak diko laaj ne ko ndax amul lo may loy sakku ci man mu ne am mën koy xel xelat ko hmm. kenn la am ku may sakku ci mom muy allah subhanahu wa taala directeur mu ngi may deg hmm. man mom juste destruction léegi nag bi ma laajee ne ma kon xamoon lu fi ni ma ne ko déedéet mu ne ma gendarme yi waxuñ la dara ma ne ko loolu ñu wax xaw ma ko ay problème mu terrorisme lañ may tudd ay problème mu euh, benn association de mal malfaiteurs lañ may tudd mu ne ah, ma ne ko loolu ci yéen laa ko déggee moo tax xaw ma ko voilà enquête yi nii la demee ba mu terminé ñu téye la fa ñetti at ñaar ba ñetti ñaari at ak juróom-ñetti weer. juróom-ñetti weer juróom-ñetti weer. te comme di maam xat yi dañ la. du woon ci benn place dañ la doon yóbbu fii. yóbbu fii yóbbu fële yóbbu fële. dem nañ ndar. kii bi nga demee procès. Mhm. li nga wax ne moom nga daj camp pénal. Mhm. moo gën a métti li nga daj ci néegu lëndëm bi nga daj. est-ce que mën nga si ñëwaat. bu baax te itam loolu dama ko war di wax. Mhm. pour adduna yëpp. xam li ñuy tuddee justice. ci réew mi ak respect di droit humain amu fi ndax nit waroo koo dugal ci benn néegam moom dong man man sama ndak rek sama nekk xet gu bon laa doon noy 24 quatre heures sur 24 quatre Ablaye may ñëw laata ma koy wax it woo naa takk der yi ba ñëw may leen hmm. ñu ñëw taxaw na leen may leen dugg si leen ñu jege si leen ñu ne ñu ne non non ñun fii la ñu taxaw may leen kon yéen néeg bi sax nangu leen ko jege mais nag li may wax ak yéen mooy sunuy takk der ngeen respect laa am ci sama réew hmm. te am na ñaaw ñaawteef yoo xam ne vraiment bëgguma ko génne àdduna di ko dégg ne lii mu ngi am Sénégal hmm. Ablaye yegg na la mais dañ ko war a wax ma wax ko chef de cour ne ko nag bu dakkul sama visiteurs yi yi njëkk a ñëw hmm. naa leen wax ñu dem ci réseau sociaux yi vilipande ko mu ne ma noonu léegi waaye ñun danañ ci danañ ci taxaw mais yooyu ñun bu fi amee jaaxal nañu xamuñ ko weddi ko complètement keroog ba fa juge d'instruction ñëwee ak euh, benn substitut procureur directeur camp taxaw ma wax ne lii mu ngi am ci biir kaso bi ñu weddi damay leen noonu maa maa ngi jàpp nañ jublu penku léegi waat bu fekkente ne lii may wax hmm. amul xet gu bon gi ak chauffage bi ñuy chauffé néeg bi bu amul yal na sama bakkan wuy ji boromam léegi léegi nag yéen ñëw leen ngeen waat ñu waat juge d'instruction ne ma non non non parce que ñun suñu système waat bokku ci d'accord seen système